huit heures passées de vingt cinq minutes ñu wëyal Allô Sénégal émission bi leen di gunge matinal bi leen di yee saay su ne ngeen di ci ànd ak bi yëpp ma dalal Kajoor Cissé Kajoor mu ngi ci plateau bi Kajoor maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha gloire à Dieu sant yàlla bu baax moom mi ñu may ñu fekkee di nuyu mbokk yi ñuy teewlu nuyu Pape Malick mi fi nekk itam. dalal ak jàmm Pape Malick nuyu naa la. Ah, am nañu mbégte retrouver la ce matin. maa lay fay aussi déjà am na mbégte aussi retrouver la am mbégte aussi de retrouver tous yi ñuy seetaan di dellu di fay aussi Kadior Cissé dal leen ak euh, jàmm la revue web dañ koy tàmbalee Kadior ak rappeur bii di Dof Ndeye su mandat de dépôt si Sénégal moom moo ci dellu siwaat ndax ni ki démb la ñu ko dal di euh, déféré ba ko déféré nag euh, dañu ko dal di euh, placé mandat de dépôt ca prison centrale bu Kaolack foofu lañ ko denc procureur de la République nag dal di criminaliser li nga xam ne moom mooy dossier ba noppi sàkku ngir ñu tijji ab information judiciaire moom nag rappeur bi dañu dafa lax woon ca ngexox foofu lañ ko jàppee Euh, bu ci booru quatre heures du matin laata ñu koy euh, indi ca brigade territoriale bu Kaolack ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon dossier ma moom nag euh, Dof Ndeye dafa dawoon laxatu fële ca ngexox ci ab kër daal di fay téléphone am malheureusement nag jotoon nañ ko localiser enquêteurs yi ba ñu ko localiser nag gendarme gendarme ya nekk ca compagnie bu mbuur Euh, ak seen unité d'élite ñoom ñoo fa def descente foofu ca ngi ngexoox euh, daal di koy teg loxo ca quatre heures et demie Euh, du matin euh, moom ñu koy toppee nag euh, loo xam ne vidéo bu waroon euh, toile bi la ndax ñu ci vidéo boobu ñu ngi ci doon gis moom muy jàmmati ab nit ay coup de poignard yu bëri la la ko jot a jàmm moom nag mu jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti moom sax dafa góor góor lu ba rëcc ko daw ngir mën a sauver bakkanam ba mu ca jugee nag mu indi. que mu gaañ mu dem euh, indi euh, certificat médical euh, boo xam ne dafa am incapacité temporaire de travail bu weesu ñaar fukki fan mu déposé plainte ca commandant brigade territoriale bu Kaolack ki nga xam ne moom la jam nag mu ngi tudd Boucar fay nekk élève waaye itam su école tëjee lii di moto taxi moom lay dawal. bu nu jógee ci loolu ñu wax ci gouvernement bi Kajoor ñoom nag dañu fas yéene publier ab list euh, des médias yu nga xamante ni moom la état bi reconnaître waaye euh, waxaale aussi euh, ñi nga xamante ni ñoo di les propriétaires. loolu kii di Alioune Sall mi ñu dénk wàllu communication di jawriñ wi moom moo ko daal di xamle Seneweb di ñu ko yeggee jawriñ wi nag nee na gouvernement Sénégal dafa bëgg lépp leer ci anam bi nga xam ne moom na nuy yore média yi si euh, euh, biir euh, réew mi loole nag nee na danañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel yi dajale way taskatu xibaar yi nekkoon ca ndaje ma ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni i technique techniques naka noonu mbootaay yi xeet yi nga xam ne itam dafa leen jàppale ci wàllu euh, koom-koom ak yenn yi ñuy euh, doxal ñuy fexe rek ba garantir lépp loo xam ne moom mooy transparence ci anam yi ñuy yoree secteur u média yi ca looloo ca loolee nag moo waral ñu fas yéene fësal média yi nga xam ne daanaka officiellement ñoom la état reconnaître Euh, ba noppi nag ñu fësal itam ñi nga xam ni ñoom ñoo ko moom euh, ñëpp daal di koy euh, xam ndax li ñu bëgg arrêté mooy fexe rek ba média yi bañ a nekkati ay mhm. moyens d'influence wala ay lobby yoo mhm. xam ne ay nit ñoo ko yor di ci faj seen soxla mhm. donc loolu la ñu bëgg dakkal ci réew mi bu ñu sukkandikoo nag ci moom jëwriñ ñu dénk wàllu Euh, communication bi nee na nag entreprise de presse yi euh, ñoom ay euh, entreprise lañu comme yeneen yëpp donc am na loi moo leen tënk lépp loo xam ne moom moo leen war itam faw ñu di ko sàmmonteel ndax nag ci loolu la leen loi dal di teg moom na Sall nag mu ngi doon addu euh, yëkkati kàddu yu ni mel ni ki démb mhm. ci ab ndaje moo xam ne ñu ngi fa doon waxtaane wàllu média liberté de presse naka noonu ñii di lanceur d'alerte yi ak ni ñuy def ba gën a yokk kaarange euh, journaliste yi ndaje ma nag ñi ko sababoon mooy kuréelu kuréel yi dajale ñëpp ñu yëngu ci wàllu tasum xibaar mooy coordination des associations de presse du Sénégal muy CAP convention des jeunes reporters du Sénégal association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne Sénégal ak ak euh, CORED muy conseil pour l'observatoire l'observation des règles d'éthique et de déontologie ak article 19 ci jàppandalu au commissariat Nations Unies aux droits de l'homme bu ñu jógee ci loolu Kajoor ñu dem fële ca Burkina ambassade Sénégal ba fa nekk ca dugg foofee nag ay manifestations am na fa. waaw démb ñu ne nag euh, journée noire la boo xam ne euh, am na foofe euh, ca Ouagadougou enfin journée noire pas journée noire mais manifestation boo xam ne am na ci buntu ambassade bi ñoom nag li leen li ñu doon fësal comme naqar nee nañu dañuy naqarlu ndaje moo xam ne amoon na fii ci Ndakaaru Euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi nu weesu te Amnesty International ànd ci ak coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains organisé ko woon fii ngir fexe ba xeex li di liberté Euh, liberté respect ñu respecter liberté ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Burkina nee nañu nag loolu euh, mbir la moo xam ne ñoom seen yoon nekku si ndax dañoo dugg si lu seen yoon euh, nekkul Burki nee nañu ñoom dañoo jaaxle li tax ñu dugg ci mbir moo xam ne problème interne la ñoom ñu dugal ci seen loxo nee nañu nag taxawaay bu ni mel te amnistie Euh, jiite ko ne nañu du dara lu dul rek euh, bokk ci manipulation boo xam ne opinion bi mi ngi koy def ngir euh, daanaka yàq seen deru réew ginnaaw ba mu njëkkee daanaka fësal ab pamphlet boo xam ne mu ngi ko fësaloon 24 février 2024 ñu doon wax nag si ay. ay euh, violation ci àq ak yelleefu doomu aadama yi foofee ca Burkina te ñoom ñu jàpp ne loole mhm. am na si li mu wax dara du ci euh, dëgg nee nañu nag euh, ñoom yoonu occidentaux yi rek la ñuy topp ak yenn médias occidentaux yi nga xam ne jamono ji dañoo taxaw ci tànku tilimal deru Burkina Faso te ñoom loolu moo waral nag ñu jàpp ne. manifestation bi ñu amaloon Dakar fii nii eh, ci li nga xam ne moom moo ñeel eh, dundinu Burkina Faso ne na seen yoon nekku ci waruñ ci woon dugg. bu ñuy wax ba tey ci manifestation bu ñu demee fële ca Kenya foofee itam ay manifestation am na fa ba am ay nit yu fa ñàkk seen bakkan. journée noire bi ma doon wax nag fii nii la amee ci Kenya ndax euh, manifestation la boo xam ne euh, mu mel ni rek onze onze euh, juin bu. 23 juin boo xam ne amoon na fi ci Sénégal ñoom it dafa mel ni loolu la ñu dund démb ndax ab loi boo xam ne dañ ko doon voté foofu moom mu jur lépp ndaw ñi daal di euh, wàcc wutali fi nga xam ne moom mooy euh, parlement bi ndax euh, te te rek loi boobee muy loi bu yees loi de finance bu yees bu ñu doon adopté donte sax nag euh, lu bëri ci askan wi. Euh, mhm. dañu na ànduñu ci boobu lépp euh, loi ñoom dañu ko daal di wate looloo waraloon nag ay jàmmarloo yu tar ci diggante askan wi ñenn bokk ci askan wi ak way takk der yi ñu lim ci nag ay. ay nit yu ci ñàkk seen euh, bakkan policiers yi jotoon utiliser gaz lacrymogène ngir tasaare euh, nit ñi euh, ñu bëri itam jële ci ay gaañu gaañu lu bëri ci ay commerce itam foofee ca Nairobi ñu daal di koy caxat caxate comme lu fi amoon itam ca noonu nag la ñu daal di décréter ab couvre-feu boo xam ne fa dugg entrée en vigueur njiitu. Euh, Kenya Kenya bi nag moom daldi dinay àddu démb euh, si euh, li nga xam ne moom moo xew wax nag ne ñi ne ci ginnaaw doon protester Euh, nee na ay ba ay groupe criminel la yoo yu organisé nee na ñoo xam ne euh, dañoo bëgg rek euh, salfaañe dalu réew mi loolu moom moo leen tax a jóg nag dalal na xel yi nee na li fa amoon dootu fa amati ndax gouvernement bi dina jël matuwaay yëpp yi war ak lu ko mën a jaral. Mm-hmm. dina ko jël ngir fexe ba yëngu-yëngu yu mel noonu. Euh, bañ a amati moom loolu la daal di euh, xamle. jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal euh, bu baax a baax xibaar yi am na solo la xew Kenya doy na waax torop Burkina itam manifestation ya fa am jaajëfal la bu baax a baax gouvernement bi nga xamante ni gouvernement du Sénégal fas yéene publier liste des médias yu nga xamante ni état bi moom la reconnaître ba noppi wax ña moom yooyu média naka ngeen gisee loolu noonu. c' est une bonne chose parce que lép loo gis transparence daf ci baax bu fekkee transparence rek lañ ci ut on est on est tout à fait d' accord et man je salue l'initiative parce que gis nañ fi ay ay ay nit yu jógee extérieur ñëw eh, eh, eh, ji fi boite ñu bañ ba tëdd ci suuf na duñu du ñu nekk en règle ñuy ñuy ñuy débaucher ay nit di leen di leen di leen fa di leen fa liggéeyloo ci ay fen da ngay ñëw ne la alors que moom ndekk nekkul sax en règle balaa ngay xam ne nekkul en règle fekk dugg nga foofu noonu avec des contrats yoo xam ne yu fallacieux la euh, finalement beaucoup de gens mu mu indi leen ay problème ci seen carrière ak yooyu noonu il y des gens yoo xam ne tey dañuy ne journaliste lañu alors que seen locaux yi kenn xamul fan la da ngay dem benn rencontre gis liste de présence presse bi recto verso lay nekk gis ay sites yoo xam ne boo boo ko tapé woon boo gis page bi c'est c'est du n'importe quoi en fait te loolu noonu aussi ça a à ce que presse bi mu précariser wu nii tey aussi ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo tijji seen seen boîte yi euh, ay ay nekk ay politiciens yoo xam ne tijji nañ ko rek juste parce que ils ont envie de de de faire des propagandes li ñuy dox ak li la de d'éthique et de déontologie ñoom ils n'ont rien à foutre de ça te loolu noonu euh, tax na tey xoolal presse bi tey ni niñ leen ni ñu leen di traité la presse la la presse tey jii ku ku ku ñàkk loo koo xas rek presse bi ngay ñëw xas da ngay gis ñoo xam ne gënuñu la si dara. Mm-hmm. mais parce que journaliste nga euh, waaye yenn journaliste yi yenn. journaliste yi boole ñëpp si ah, benn boole ñëpp si mm-hmm. ñëpp parce que mm-hmm. alors que nit ñi. ñi jub ñu ngi fii jubalee te corporation boo dem am na ay ay ay nit yoo xam ne dañuy jubadi mais nit ñi fii nii ñi ku nekk nu ñu la yaree noonu ngay liggéeyee ni nga mel sa kër noonu loolu ngay wone si si fi ngay liggéeyee kenn du lay yàpp ku lay ku lay fay du lay yàpp parce que sekkoo leen lu dul nga liggéey mu fay la mm-hmm. tu vois donc mais ils ont tellement précarisé la presse ba nga xam ne léegi de kenn xamatul kan mooy kan. Mhm. kenn xamatul kii fait quoi. Mhm. donc loolu noonu bu ñu ci indee transparence tegaat lépp ci yoon qui n'est pas journaliste qui est qui est patron de presse qui n'est pas mhm. patron de presse qui est kenn xamatul ça va tous les sens donc il est temps que ñu ñu ñu régler loolu mu leer ñëpp ku nekk na nga xam fi ngay taxaw defe mhm. naa loolu maintenant nag que ça ne soit pas aussi un moyen boo xam ne dañ koy jël pour pour topp ay nit di leen di leen di leen di leen di leen teg pression peut-être loolu laa ci ragal mais bu fekkee l'intention elle est sincère et elle est équidistante par rapport à tout ce qu'il y a comme comme comme comme répression moi je salue l'initiative merci beaucoup Kajor am na solo Kajor euh, Pape ton avis par rapport à ça par rapport ak euh, pré euh, comment dire sortie ministre bi ne day bon bon je me dis que euh, la mooy pertinence sinon bu fekkee ne bu dañuy wax nañu génne benn li suñu wax yan yan média ñoom ñoo. Mm, ñoom la état reconnaître. ah ñoom la état reconnaître bon assise de la presse ñu fi def bon il y a quelques mois bon je me dis que c'est quoi la pertinence sinon. loolu dafa am chevauchement code de la presse bi aussi tamit wax na si. Mhm. nga xamante ni gars yi xeex nañu ba ñu euh, bon y avait des luttes pour ñu pour ñu pour ñu appliquer ko et tout. di me dis que là bi quoi parce que moom dañuy nekk dañuy nekk peut di def à reculons tout le temps euh, bu fekkee dañaa def ay assises il y deux mois après le ministre génn boo def le même discours. que soit mu nekk assise bi nga xamante ne presse yëpp ñoom ñoo ko def ak ay textes. Mhm. et déclaration ministre bi boo la moo si la moo si la moo si pertinent bon je me dis que loolu situation bi yëpp c'est à l'image en fait de des médias sénégalais dafa jaxasoo de telle sorte que ba nga xamante ni pour ñu lijjanti ko dina métti torop torop torop parce que victime principal bi ci lii lépp mooy presse classique mooy mhm. victime principale pourquoi moo wax loolu mooy da ngay gis ñoo xamante ne da mhm. gis ñoo xamante ne ci kii bi la ñuy jógee mhm. par site internet yi ak chaîne YouTube yi nga xamante ne Euh, yenn type de personnes yi wala ñenn wala ñoom ñooy vendre ñenn ñi. Mhm. léegi presse classique bi nan lañ ci nekkee victime moom mooy dañuy jël ñooñu sans expertise sans ñu xam ne personne ressource nga donc tu peux parler aux médias saa bu la neexee lan ñoom ñoo ñu ko vendre moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk presse moderne bi moom mooy ñu nga xam ñoo nekk sur YouTube yi wala wala site internet yi donc pour moom presque classique bi victime la si loolu. quant à décision ministre bi wax ne bon dafay jël liste. bon man xaw ma si yan critère lay tënku pour pour ne dafay classifier dafay génne liste boo xamante tel euh, tel média ma parce que c' est très compliqué. Mhm. pour nga bëgg a xam mën média mën na ñëw ñu ne waa da ngay laaj cinq journalistes wala dix journalistes yoo xamante am nañ contrat mais mën nga génne ay contrat yoo xamante bon voilà reposé wul si si si dara donc moi je me dis que. man aw ma man je suis très pessimiste si euh, avenir presse ba franchement. Mhm. si kan moo war a nekk journaliste mhm. kan moo warul nekk journaliste euh, kan moo war a nekk média ku warul nekk très pessimiste très pessimiste. parce que y a des influences y a tout et puis bon à, la limite je me dis que y parce que assises comme ni ma ko waxee assises yi fii et puis y a beaucoup euh, code de la presse muy fii mais loolu identité presse bi muy parce que dañu doon wax ne avant. pour mhm, reconnaître carte bi nga yor ko bon. Euh, man am naa benn benn xarit boo xamante ni c'est un journaliste moom dafa yor carte presse ñu wax ni carte presse dañu lay reconnaître mais on l'a on l'a roué de coups comme pas possible si manifestation yi passé pourtant amoon na sa coup voilà sa carte donc tu te dis que tout ça soo ko xoolee mm-hmm. bon tu es tu es tu es pessimiste là Voilà. D'accord. Alors, le rapport d'offre Ndeye sous mandat de dépôt, on s'y attendait avec tout ce qui s'est passé. yoon dafay def li nga xamante ni moo di liggéeyam. On enchaîne de plus belle waxtaane actualité politique ak économie léegi-léegi bu bàkk bi noppee rek di dikkaat ci plateau bi.